est-ce que xam nga ni tey réew yi tey ay tukkikat yu ñëw ci réew yooyu noonu rek laa ko mën a déggee pendant que ñun ñi ngi wax ni am na réew yoo xamee ni ñoom soxlootuñu ñun ñu ñëw ci seeni réew am na ci ñenn ñoo xam ne ñu ngi ci yenn réew yoo xam ne ñu ngi ñuy wax ni soxla nañu Ibrahima Fall lumière ñëw foofu ma ni ko mais euh, comment se il mu ni ma mu ngi dépendre ci kii ñëw donc wax na ma sax ay corps de métier yoo xam ni bu ko nit ñi amee xale yi buñ ko amee daanaka bu ñu wàccee tey lundi mardi mu wutal leen liggéey donc ça veut dire que ni euh, Moussa mën nañu jàpp également que ni tukki am na ci benn niveau boo xam ni buñ ko organiser mu am yoon wu mu jaar am également ki tukki moom it xam ni lii moo ko war digganteem. allo. Ok, n'inquiète pas. naked ba. Alors, Baye. Waaw, DJ. Baye Diouf maa ngi lay siyaar Baye ndax mën nga présenté wu man de rajo defar sa bopp rek xam naa également qui syndicat yi nga nekk foofu ca Italie. waaw mais yow boo ko présenter doon présenté sa bopp dina gën a euh, jàppandi daal. waaw comme comme li ñuy wax nag présenté sa bopp yombul waaye nañ wax ne rek ne man je suis en Italie depuis.

en 2018 à Milan ben syndicat bu tudd syndicat des travailleurs africains dans le monde mm-hmm. euh, parce que li tax ñu créé ko rapidement moo me ne dama gisoon euh, problème bi nga xam ne <coughs> moom la africain yi di vivre en Europe ñàkk taxaw bi ngeen doon wax nii ak ñàkk accompagnement bi ak orientation yi nga xam ne nañ ci bi xam ko grand problème de l'immigration africaine en Italie parce que xam ngeen ne euh, euh, vie Afrique ak bi Europe bokkul te boy dañoo laaj ñu leen di orienter di leen accompagner di leen expliquer loolu daal euh, yàlla def na donc créé nañ ci benn benn rajo depuis mhm. depuis 2009 buy aimé dans le web mu nekk rajo defaral suñu bopp ñu tuddee ko rajo defaral suñu bopp ndaxte depuis 2009 bi avec YouTube bi ñu kii la commencé di expliquer lu bëri ci Italie loo xam peut-être ñakul né ñak dégg italien wala ñak xam culture européenne diko expliquer dal xale yi nga xamné ne ñoo ñëw fii waaw ci gàttal dal jërëjëf. waaw légui euh, bay dama la dégg nga wax euh, wax nga orientation wax nga organisation. Mm-hmm. wax nga euh, maanaam. c'est-à-dire le migrant euh, euh, potentiel dafa war a am benn organisation ba pare benn doog a de kii mu jëm. waaw tout à fait parce que euh, démb si suñu waxtaan ni nga ko waxee sax daf ma neex trop parce que ci loolu laa fi ma lay waxal nii ay boy yu ñëw daaw laa nekkaloon tey ci ngoon si yëpp parce que l'Italie pas seulement l'Italie mais le l'Europe a besoin de main d'œuvre main d'œuvre qualifiée nag la ñuy wax.

garage mécanique nga xamné day def euh, secours euh, secours routier dañu tassé démb ci restaurant bi mu ma mais doo ma dimbale man maa ngi doon xaar mané ko boy bi ma booy bi ma waxalon de gisuma ko ay ay mécanicien soxla alors euh, c'est une occasion vraiment c'est une occasion pour wax ak les jeunes yi nga xamné ñoo bëgg euh, waaw euh, immigration luñu wara a préparer la DJ im im euh, parce que téléphone ba immigration luñu wara a préparer la ken warutul teub rek dem parce que lolu aventure la nekkutul immigration immigration dañ ko je veux dire un exemple tay Italie ku fi régulièrement te Italie a mis en place parce cette année le gouvernement d'Italie euh, ma téléphone bi le le gouvernement d'Italie ça part le 27 mars dañoo def lu ñuy wax les loi flux des d'entrée des immigrés est-ce que est-ce que vous vous m'entendez Didier. ñu ngi lay déglu mais 27 mars jotagul quoi. ouais 27 mars mais euh, mais c'est les donne dafa jox possibilité euh, entreprise yi ñu ñu ñu oo ay liggéeykat bitim réew régulièrement du ñu dugg ci régulièrement mais mais Baye. waaw. li ngay wax noonu taxaw ci parce que dafa am solo man man émission bi. Mm-hmm. bu ci nit duggee wax ci loo xam ne damay jàpp ne suma doomu réew war na ci mën a bénéficier wu. Mm-hmm. man dama ci toppe parce que nee nga. Mm-hmm. Euh, euh, euh, benn loi ci Italie. may ne ñi nga xamee ni ñoom yore ay entreprise yore ay société yore ay ay yore ñoo xamee ni wóor nañ leen am nañu post waaw léegi may na leen mm-hmm. de taille euh, bi du lu bees sax par que chaque année la amoon mais ñàkk suñu réew yi ak suñu état yi ñoo ko ña ñoo ko ñàkk xam. mais cette année nag waaw cette année nag dañ koy yokk ak te nee nañ déwén dañ koy yokk cette année quatre vingt quatre mille personnes l'ont dit, 250 000 personnes. Parce que le marché de l'emploi. 24 000 personnes. Wow. Okay. Sénégal, c'est le pays qui a un accord avec l'Italie dans l'immigration. C'est Sénégal, c'est mhm. le Sénégal, c'est le mm -hmm. Entreprise. Alors, ce entrepreneur, entrepreneur bi nek fi mom moy def demande bi euh ka xamne mom la bëgg indi kooku yónnee pa copie passeport mu def demande bi mais malheureusement comme tu sais entre entre état régler déedéet